nga defee Sénégal war na taxaw loué un groupe électrogène Mais mm. ce n'est pas normal alors que nous avons un groupe électrogène yu mu moom il suffit de les réparer mm. mais les gens préfèrent de louer ji sans appel d'offres pour nous faire une leen fay à faire. affaire je viens de vous parler de 21 milliards là mm-hmm. yu nous joxe pour coupe du monde 21 mm-hmm. milliards pour pour pour pour trois semaines mm-hmm. <laughs> mais c'est sûr que lekk nañ on presque génn wàll ban kii ban car ban combustible la ñu mën a jënd ñu jënd ko. Hmm. wóor na ma ne combustible bi qualité la woon quantité bi moo doyul man gëm naa ne quantité bi moo doyul. kon xanaa xanaa kon quantité deux semaines jënd. mu ne xanaa kon quantité dix jours lañ jënd. <laughs> waaw léegi euh, ku ñu sàcc da ngay par nànk nànk. <laughs> waaw ku ñu sa xar mais dañuy gaynde la ñuy wan. Uh-huh. c'est la vérité. Hmm. léegi mu bàyyi la nga Pape Keita. groupe bi. Mhm. am na ku ci am. Mhm. am na ñu ci am benn société basée à Londres. Mhm. société boobu. mais ci ñuy jaay Senelec ci la bokk. xaalis bi di di féetee ba. et on nous dit que chaque semaine dama ne chaque semaine. gars yi lekk un milliard de francs CFA. chaque semaine ñu lekk deux millions d'euros. di ko céder en deux ou trois personnes. pas les gens de Senelec mais d'autres qui sont dans le gouvernement. c'est la vérité. dëgg la voilà problème du Sénélec mhm. problème du management c'est effectivement. Mhm. parce que le top management du de a le courage. n'est-ce pas mhm. résister pression pression gouvernementale voilà c'est ça les deux problèmes de Sénélec c'est que xaalis Bidougue est repris par le gouvernement quasiment détourné. deuxièmement tous les achats tous les trucs n'est-ce pas sont faits par des intermédiaires ils ont ne contrôler parce que tu as besoin de carburant de combustible mais doo doo ko jënde comme ni ngay dem jënde tomate marché wala ni ngay jënde euh, euh, jën marché non dañ lay livrer et puis à échéance la fay te loolu pour nga def ko pour nga am ko il faut nga am banque boo xam ne yow boo amee xaalis fa nga koy versé mu mun a am courage jël engagement ne fournisseur bi livre leen man dinaa leen fay à 30 jours wala à 60 jours wala yooyu mais Sénégal paye cash comme les comme des bana bana ils achètent cash ko kenn mësu ko gis voilà les problèmes de la Sénégal, je pense que la Sénégal n'a pas à être Sénélec. voilà loolu dégg nañ ko yaakaar naa Pape Keita ñu mën a tënkal léegi si lu mu sa lu mu wax ci problème mu yi yow aussi xam naa nekkoo Sénégal sax waaye sa mbokk ngi foofu. ñu ngi dund ko piir yi. Euh, voilà hein. dama bëgg wax ni tout simplement. Mhm. l'analyste euh, politique euh, que je suis. Mhm. boo dégloo lu muy wax. Mhm. tu sens nettement que la transversalité. de l'homme politique qui maîtrise aussi bien politique mm-hmm. que l'économie sans ñu forte aspect social bi mm-hmm. mi ngi mm-hmm. poser un certain nombre de problèmes la population aujourd'hui du Sénégal et l'ensemble de l'opposition s'inquiète non s'inquiète dangereusement et terriblement euh, de l'évolution politique ak que la politique bi di affiché du point de vue euh, euh, du pouvoir c'est-à-dire pouvoir naka lay politique bi ak naka créer mhm. façon comme on appelle ça de vouloir coûte gouverner comme on appelle ça le Sénégal en 2012 mhm. donc comme dit euh, Jean-Paul mhm. di je suis persuadé que aujourd'hui de ko il a donné un certain nombre d'éléments de réponse qui sont des solutions immédiatement réalisables hein, pour régler un certain nombre de problèmes que la population sénégalaise a la parce que c'est quelqu'un qui a toujours euh, c'est pas parce que Damoko. Non, je dis clairement que Bok, au vu de l'analyse que l'on peut tirer de l'ensemble, comme on appelle ça, de sa démarche, mm-hmm. qui a toujours été une démarche constante, mm-hmm. on sent la constance chez lui, mm-hmm. c'est clair. Et on sait que c'est un homme intègre. Alors, ma question que vous me posez, elle est très simple c'est que comment et pourquoi des hommes politiques aussi intègres que Jean-Paul n'arrive pas euh, à franchir euh, les 500, voire même les 600 adhérents c'est pas manque de euh, euh, leader politique vision politique résultat vous savez, mën 500 600 000 adhérents pour nous titiller un peu le pouvoir. parce que non parce que non c'est même pas ça c'est-à-dire que politique la manière il l'a dit tout à l'heure c'est-à-dire la manière de faire def politique. c'est ça qui est dangereux. C'est ce pour qu'en 2012 nous devions di di juste encore lu pour que l'ensemble des internautes mhm. l'ensemble de la diaspora mhm. xam exactement que lu mhm. c'est-à-dire bon on regarde la situation de la géopolitique sénégalaise 40 ans le hein, pouvoir socialiste avant même le 19 mars 2000 toujours 3 millions les tournées nous ñooy intéressé wu état de santé politique économique et sociale du Sénégal 3 millions toujours 1 million et quelques ils voté 1 million 800 1 million 900 900 wala 800 millions mille di voter pour un candidat mm. uniquement pour du yamane, mm. mais pas pour un projet politique économique et social mm. il faut que ñu fassions pour que loolu monde fii dañ Nous avons un engagement ne dina pour que d'ici là, il qu'il y ait une nouvelle conscience pour xam ni bu ñu jëlee relève bi ñu ñu xam ni nous ñu nit koo euh, parce que c'est du yamane dañ ko parce que il a des solutions de sortie de crise voilà voilà euh, Moussa Diaz il y a lu sama chroniqueur wax mais aussi benn question avant ñoo jeexal euh, clos balaa ñoo clos chapitre bi parce que sànq léegi euh, ay ay ay problème nga fi wax te aussi yaa ngi wax sànq ba nga nekk candidat en 2012 mais ban solution nga fas yéene indi tey bu ñu la faloon tey jii pour régler problème énergie Sénégal mu jeex une fois pour toutes. problème bu lan. ban ban ban solution nga fas yéene indi tey pour bu ñu la falee tey nga jéem a régler problème énergie Sénégal. bon d' abord dama bëgg <coughs> wax Pape Keita ne. Mhm. Euh, li mu wax yëpp dëgg la. Mhm parce que situation bu vivre mhm. les vrais responsables ou mhm. Yen ñaar du auditeurs du ñuy mhm. du man du c'est le peuple sénégalais qui est responsable Je vais vous donner un exemple oui dembe amna ko s'appelle Malik Malik Ndiaye enseignant le professeur universitaire oui oui si vous marché ah yeungu ci société civile Malik Ndiaye a organisé avec les gens des gens des consuméristes c'est-à-dire des associations de consommateurs dans la marche de protestation il y a fou coupure électricité mm-hmm. mais kenn ñëwul mm-hmm. nit ñi nekk ci mbedd bi di leen xool ñuy dox ils étaient peut-être une cinquantaine ñu leen di kukkari mm-hmm. voilà le Sénégal yow ay nit ñu xamné ne mën nañu toog seen kër ils achètent leur groupe électrogène nekk ci cette jamm di naan seen dox bu sedd weer gu dee ñu ngi feeku payoor bu am maanaa et que ñu lay xéxal yow nga leen di kukkari nga leen di sétal voilà le Sénégal c'est un pays où les gens n'ont pas, de confiance citoyenne. Mhm. Ce qui fait qu'en l'an 2000, a gagné l'élection. Et mhm. quelque part, peut-être historiquement, nous mhm. parlons. Mais en 2007, Watt n'aurait pas dû être élu. Ce n'était pas possible. Mais nous sommes Mais nous sommes confortés. nous avons expression, <laughs> voilà ce qui se passe aujourd'hui, c'est la faute du peuple du Sénégal. Mhm. vérité. Donc, ayons le courage de critiquer le peuple. encouragement comme nous ma dit ko ci élection locale mm-hmm. je pense que xel commence ngi aussi. tel mm-hmm. je pense que xel commence ngi aussi. tel aussi. je pense que xel commence ngi aussi. tel mm-hmm. à partir de là je pense que nous pourrons euh, nous pourrons avoir un peu d'espoir man comme je vous ai dit découragé wu Je amna na nag foo xam ne bu ma fa waree tollu nag bu pour la waxaguma je suis candidat en 2012 waxaguma dama né luma DCG nous mu yàgg def mm-hmm. dana am liste pour 2012 dama la 2012 mm-hmm. mm-hmm. du ma jàppale kenn comme ne ngeen dama ay gaaf du ma jàppale kenn <laughs> waaw ma jàppale suma bopp waaw waaw ma jàppale suma bopp <laughs> su ma représenté il faut que caution bi parce que l'on leen dul wax souvent parce que rien na ngeen ko c'est que vous présentez candidat président de la république da ngay tayle waaw li ngay tayle tollu de vingt 25 millions CFA Les gars gars, est-ce que dinañu ba 100 millions euros peut-être trente mille euros nga xaw ma ñaata la. Mhm. n'est-ce pas mais vingt cinq millions CFA ngay tay de. Mhm. ah mais loolu njëgu kër la. Mhm. ah xanaa wóoloo sa bopp. il est question les gens qui sont au régime tey. qui sont au pouvoir tey. comme sàcc nañu lu doy. seen la fees il est question ñu yo ko cent millions. te ngay tay le cent millions nag dégg nga ah il faut nga réfléchir bu baax. dëgg la su ma amee man certitude. que bu ma tay le cent millions peuple sénégalais fal ma. mais dinaa ko tay de. mais bu ma bu ma amul certitude lu tax may uti cent millions di ko tayle. ah loolu loolu loolu day xaw a doo ragal. yow ku la xam-xam ni ku la xam-xam ni doo ragal mais lii day niroo ragal ay kàddu ragal. man lii lii day xaw a niroo kàddu ragal. nga waaw li nga wax nii day xaw a niroo kàddu koo xamante ne ku wóolul boppam la. mais dem di sa bopp. kan ah! sa bopp kuy dem si géew kay rek damay daan. yaa ngi daje ku toll ni yow. ah man de su may bëri ji man dama naa damay daan. ah. man man de su may bëri ji dama naa damay daan. waaw da ngay ne yaay daan mais amuloo certitude. cest à mooy sa bëgg-bëgg. sa bëgg-bëgg ngay dem da ngay mhm. dem ak sa bëgg-bëgg. Mhm. mais amuloo certitude. Mhm. amuloo certitude. woon dama lay jox benn exemple. Euh, élection yi passé Moustapha Niass dem na treize partis xaw ma en tout mën nañu dix partis yu ko jàppale. Ah, nga. amul 5 pour cent mais dafa récupérer conscience, 5 pour cent def. oui. ça qui est 5,1 hmm. donc ça veut dire que moom à titre personnel deful sax 5 pour cent yi. da nga defee loolu yott. non non pas normal. Hmm. quand même chose dans ce pays. dégg hmm. donc c'est pour te montrer comment c'est délicat. man suivre naa élection yi en Guinée récemment. mais gis naa ay kàngam yoo xam mais ay 1 pour cent la ñu def.

ak ak ak naa fekk du ma dégg kon xanaa ñëpp nga fiy jëlee. nga ne. ma kon xanaa ñëppay dem. ñëppay dem. <laughs> te dama leen di teg sax hmm. kon kon kon rejoindre lu lu lu euh, Mbacke ku ci place gu mu hmm. ko. Hmm. voilà donc ak ci diaspora bi. nit ñoo ñun ñu ngi ci. gens sérieux mais nekkuñu ci nguur Ni mm. ñi nekk ci nguur gi gisuma ci ñu bari ñu sérieux peut-être deux ou trois en passant. Mm. waaw mën na nekk. dëgg la mën na am deux ou trois exceptions en passant. Mm-hmm. mais essentiel de 80, 90% quatre vingt dix pour cent ay truands la ñu. Mm-hmm. la monsieur Dia yaa ngi koy wax léegi euh, may fàttali internautes yi ngi dalal monsieur Jean Paul Dia secrétaire général BCG yéen aussi mën ngeen ñëw mën ngeen ñëw participer ci émission bi euh, Skype scène politique monsieur Dia bu ñu ñëwee ci côté politique sénégalais maa ngi déglu démb bërki démb président de mu ne opposition bi gisul kenn ko xamante ni war na mën daan doomam xanaa loolu sa calcul loo waa kii waa BCG. Uh-huh. dafa yabaate doomam kan la fi jax jàng dama bëgg ne. Uh-huh. doomam kan la fi tax a jàng fii mm-hmm. Sénégal. doomam mm-hmm. kan la fi gën a fii Sénégal. Mm-hmm. doomam kan la fi ëpp fit fii Sénégal. doomam kan la fi gën a fii Sénégal. xaw ma ban ban ban jàlla jàlloore la fi def fii Sénégal wala ci biir parti bi te kenn defu ko dama ne dafay wax lu mu lu ko nekk hmm. n'est-ce pas euh, peut-être sax peut-être waxu provocation la man daal dama ko teg waxu provocation la quoi hmm. je pense que loolu la hmm. mais day wax lu ko nekk ay waxu ah, yow lu toll njiitu réew wax nga day day nga day provoqué non peut-être waxu provocation non dama ko xam dama ko xam wala wala wala wala dafa bëgg gars yi gars yi fàtte problème coupure yi mun